mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu mbokk yi tey fukki fan ak juróom benn eh, di bi nga xam ne ni moom lañu door liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Xelcom Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ñu di ko ñaanal mu yàgg flotte ànd ak wér gannaaw bu ñu ñaanalee Serigne Saliou sunu borom fayal ñu ko liggéey boobu ko way juróom bayee te boobu ba nga xam ngeen ne ci la teg tànkam ci yokk daar yi yaatal dong yi taxawu leen ñu ñëw nag incha allah ni ñu ko baaxu di def rek fas yéene guumee mbokk yi ci woote bu réy bi nga xam ne Serigne Cheikh woote war na ko Xelcom 2019 euh, ñu ngi fii nag ci digg tool yi ndax kat dañu ñëw ci dal yi waaye day jafe nga fekk fa jëwri ñi nga xam ne ñoo jiite li nga xam ne mooy liggéey bi yëg-yëg yi ak sentiment yi ak nan la déggee liggéey bi nga xam ne nii moom la sal yu bàyyi fii te Serigne Cheikh di ko wéyal bismillah liggéey bi dafa am ay cosaan yu bari yoo xam ne bi ko sëriñ bi toppatoo moom tool bi ñun euh, daaray xabaan la ñu fekkoon nett nettali woon nañu ci ay xise yoo xam ne gannaaw bu amee ndigalul sëñ Touba ci tërbiye gi ak yi ci aju yëpp euh, xabaan googee la ñu waxtaanee la woon ne dafa bëggoon wut tool bu bu yaatu boo xam ne dana jege ñëpp euh, ngir jëwriñ ju nekk dana mën a am sa fukki tool yi bopp yoo xam ne foo bay boo ëllëgee nga mën a bay feneen nga xam ne du gaaw a sàppi ñu def ko muy tool boo xam ne jiw lislaam dafay génne noonu la ko nettalee woon ci gannaaw boo xam ne am nañ digal ci tërbiye gi ak yi ci aju yëpp muy daara yi nii ñu mu baaxoo def nga xam ne jàng alquran jàng xasida jàng xam-xam di jaamu yàlla di julli def lépp loolu lañu fiy def ak yar tërbiya ci ndigalu sëñ Touba loo xam ne moo ko nettali bopp moom sëriñ Saliou wax ne sëriñ bi moo leen woowal boppam Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Saliou tudd na yeneen kilifa Euh, su ma juumut sëriñ Masamba lay doon waaye yee ci yi ci des moom jàpp ma ko waaye jàpp naa ci yett tur yi yoo xam ne sëriñ bi moo ko nettal boppam wax ne bi leen sëriñ bi sëñ moo roqee buso waaw bi bi mu leen wooyee sant leen tërbe gi ak yi ci aju yëpp waxtaan ci ak ñoom xise bu yaatu la ba waxtaanee ñoom ba noppi nee na dañoo dajee ñoom seen biir waxtaan nee nañ ko laaj yi pajug aajo ñu yebal Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak sëriñ Falilou ñu demaat ci ko baax ki waxtaan ak moom waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ba seen seenu jublu ñoom ñi ñi daje woon waxtaan seenu jublu ñëpp ñu waxtaan ak moom ci ku tedd ki muy sëriñ Cheikh Ahmadou ba Xaadimu Rasuul euh, sëriñ bi ne ne sëriñ bi may nettali de mu ne nee na mu ne dënn ba mu yàgg mu ne ana li may def daal moo di yéen daal wuli leen rek ku mokk may duy li may def daal moo di yéen daal wuli leen ku mokk may duy ba mu leen waxee loola lañ xam ne du wuute. pajug aajo googu nga xam ne dafa dañ ko dañ ko doon laaji nag sëriñ bi da koo dëxëñ ci liggéey bi ak baat boobu mu wax ne wuli leen ku mokk may duy maanaam yar leen baatu wuli mooy yar euh, mbuus yi ñuy def ndox te naar daa ko def ak ñii daa jéggee ka def yëf euh, ni ñuy def der bi boo ko defee da nga nga mën caa def ndox te du yàqu loolu ci la ko misaal moo tax mu ne wuli leen ku mokk may ba mu leen waxee loolu lañ xam ne du wóote ñuy sant sëriñ Saliou bu baax ci ànd gi ñu àndoon ak moom ak mboolem dongay tërbiye yëpp eh, di ci siyaare Cheikh Serigne Saliou Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad eh, ak ñi nga xam ne moom la àndal ci biir liggéey bi ak sëñ ant ak eh, sëñ Moustapha Abdoul Akram ak sëñ Cheikh Amar mi nga xam ne jëwriñ la ca soow ba ñoom it ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal yàlla ci gannaaw bi mu génnee ci yooyu mu génn di ko sant bu baax ci taxaw bi mu taxaw ci liggéey sëriñ bi ak mbokki jullit yëpp ndax euh, ñëpp ciy jàpp bu ko defee ne kon ñi ngi sant yàlla bu baax ci loolu ah, di leen ci di ci ñaanit ñu daje cee ngërëmam ak tawfeexam ak ndimbalam te lépp sëriñ Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne moo ne ci bopp bi euh, jiite nu ko lu yàgg-yàgg te suñ Touba euh, suñ borom wéral ko ci daraje yi sëñ Touba barkeb Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi leen sant yéen yi nga xam ne yéen yéen waa rajo bi ñëw fii ñaan rajo bi suñu borom jëmale ko kanam ci daraje yi xel kom barkeb ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mboolem ñi dooni saaliin ci sowu feneen yàlla na seex saaliw di seen jant bu tiim waa xarnu bi lii sañ Moussa moo ko wayoon yàgg na muy dem di dem di dem ba doon sëñ Touba ba kenn wérante wut ne mooy sëñ Touba léegi ñu ñëw kër sañ Moussa kon waree naa xam le ne sëñ Moussa moo waxoon loolu. taalibe yëpp di nuyu bokki jullit yëpp li nga wax nag lenn laa la ci jubbantil ci li nga wax te mu diis ci sama xol mooy li nga ne fasante kóllëre déedéet nun fasunu kóllëre de fii ki ko moom danoo moomaale muy sëriñ Saliou loolu moo waral sunu laxasaay gii moom dong lañ jël su ñaari gët it teg ko fi sunu kanam te am yàqin ci ne mi ngi jàlloo ak noonu ba tax na luñ fi def defuñu ko sax déedéet yàlla nuy dimbali rek dinu xiir dinu rof kattan ak tawfiq ñu di ko man ndax tey jii bi may xëy ñi ma xëyandool ca daara ja suba laa jàppoon ni ca laay mën a ñëw fii ndax ñoom démb bañ fay déparé lañ leen ñaanal bërki démb waaye may leen nag maa ngi ñëw ma defoon ni danaa mën a ñëw démb yaram wi téye ma tey jii nag bi may jóg moom dafa mel ni am na lu dugg ci man dugal ma ci kattan ak cawarte goo xamante ni sax xaw ma lu ma ba sabab ma dab si ci waar wi ndax sama xel ma dugub dal ñoom njaboot gi ñu ne ci waar wi may toog li dal sama xel mooy ma ànd ak ñoom waar wi ndax damaa xam ni fii tibb sex la tibb seex la tibb seex rek la kon ci loolu lañu nekk noo ngi li ñu waroon jiital nag mooy sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ibnu sëriñ Saalih di sunu kilifa di sunu lépp nag moom mi nga xamante ni moo nuy baaxee lii bañ man cee teew mën cee jëf ci jëmm yàlla rek tax joo xamante ni dara it kooju ko ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam kon noo ngi koy ñaanal gannaaw bañ ci fasalee sunu bopp ndax fii kat ku fi teew teewaaleel yéene waaye teewaaleel pas-pas bu sell boo xamante ni yàlla rek moo koy lal ak jëmmi sëriñ bi boo ko defee loo fi dogu fas ko ci rafet nañ jot ci ni loolu suñu borom mën na caa def lu kawe sa njort noo koy ñaanal di ko fasal moo xam mébétam moo xam bëgg-bëggam moo xam yéeneem gannaaw yàlla waaye nam bëgge nam yéenee yàlla na ko ci yàlla fekk ak lu kawe njortam ak kilifaam gi ci kanamam di seex Muhammadul Muntaqa nam bëggee nam yéenee nam fase yàlla na ko yàlla dajaleeg lu kawe njortam ci tawféexi borom Tuubaa sëriñ Seex Ahmadou Mbàkke yàlla na ko yàlla yokk tawféex yokk ko kàttan ni ma waxee rek nam bëgge ak nam yéenee moom moo ko xam gannaaw yàlla yàlla nag moom lu sotti moom la mooy boroom kàttan goo xamante ni yéemu wut fenn te tàmbalee wut fenn na ko ci fekk ak lu kawe kawe kawe njortam lu mu njortu ci liggéeyal ko sëriñ bi rek yéene ko ci rek yàlla na ko ci yàlla fekk ak lu kawe njortam di sant nag mbooloo mi ndax ñoom xaaruñu ma ci dara ci ngir seenu jaayante ak seenu dëgg ak seen pastif ak seen yitte ndax waa Manarul Huda Touba Mbarassane àllarba lañ gonte si woon xëy nañ démb xëy nañ tey jii ma door leen fee dab si tey te ñi ci ëpp sax mën naa laa wax ne bu doon ñetti nit lañ ñaar ñi sax dikk guñ mooy tax noo ngi sant mbooloo mi fu nu mën a nekk bokki tali bi ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew lépp ñëpp di soññ ci liggéey bi nag ñëpp xam ni tibb seex la lépp lu ci waay def sa bopp nga ko defal la moom kenn du ma laaj li ma fi def ndax ñun euh, dañoo gane àdduna sunu waajur dippee ñi Serigne Saliou sunu waajur it nga xam ne mooy Serigne Baraka moo nekk nag sëriñ bi ak Serigne Moustapha Guèye muy waajuru sëñ Modou Guèye mooy lu yàgg euh, sunu lépp Serigne Saliou la kon ni nga ko waxee ku ñu fekk xel koom doo ñu laaj lu fi def naka jekkit ndax bañ koy njëkk jox. suuf si nga xam ne boobu sax santaane guñ gor bi jamono yi ñu fi ñëw di ko wër mën naa ci génn sëñ xalifa euh, daaru xafoor bi nelaw sëñ ndaam saaliw euh, keroog sax euh, Abdou Cissé moom sëñ Mbay Cissé yàlla na yàlla doon leeram xaw nañoo takku dafa tibbi suuf si na ko ñaan ci ndax yéen lu ngeen ñaan yàlla def ci barke Abdou Cissé daf ci wenn way woo xam ne ba fi ma waxee yow way wi man maa ko yor ndax sañ bi dama ko joxoon na man na tasaaro ki daara yi ma ci wëcceekoon lu ci bari bari euh, soo wëcceekoon ko jox ko daara yi fi mu waxee yoon maa ngi maa ngi woy woowu kon fii euh, am na lu ñu fi xam am na lu fi doon boobaak léegi nag waxtu woo xamante ne liggéey bi jóg na danañ jóg ak sunuy bokk bokki taalibe bi yëpp ak mbooloo mi euh, ñëw ci liggéey bi baas su baas sunuy baas andi lañ man di togg di jox doomu aadama yi mooy ñi ngay ñi ngay ñi ma wër ñi ma àndal yi nga xam ne ñoom itam liggéey bi daanaka yëpp ñoo ko yor waaw duñ sonn duñ tay guddi bëccëg ba fekk liggéey bi jeex ñu yeyuñu ñu daal di dellu. kuréelu waa waajal xelkom mbooloo la moo xam ne maanaam dañoo nàmpatalu ci keppaaru Serigne saaliw ñu jóge ci dem ba yàlla dogal ñu yëngatu ci seen bopp ci xewli Serigne bi ñu ne ñun daal luñ mën a lu mën a xew ak lu mën a amit duñ fàtte li nga xamante ni mooy njabootu Serigne Saliou duñ fàtte tamit fi nga xam ne mooy daara Serigne Saliou yi biñ ko nag. ñu am ci ndigalu Serigne Cheikh Saliou dem waxtaan ceeg moom mu jox ñu ci ndigal waaye ñu leeral ko liñ bëgg a def mu rafetlu ko lool ñoo xamal ko ne ko daal Mbàkke bu ñu soñoon xel kom ju jot danañ ca teew ni nga ko ni nga ko diglee ak ni ko Serigne Saliou diglee woon waaye bu loolu weesoo tamit danañ jéem a teew ci bépp liggéey boo xamante ne bii nii liggéeyu donga yi la lu ci jëm mooy lu jëm ci wàllu saabu wàllu eau de javel wàllu ay tissu yi yoo xamante ne dañ koy jëlee ba Siin ñaw ko boole ko paqueté ko dem yóbbul ko sëñ bi boole ci lu jëm ci wàllu lépp loo xam ne jumtuwaay la yu dong yu soxla ci ay dàll dàll yi nga xamante ni dàlli plastique la ak yeneen xeet pointure bi nga xam ne moo gën a nekk bi ci gën a tuuti ba ci gën a mag bi ci gën a mag loolu yëpp ñu fas yéene boole ko ci suñu liggéey bu ñu liggéeyee ba ci kanam rek bu soobee yàlla ñu jëlaat lañ am dem yóbbul sëriñ bi bàyyi wuñ sukkaru koor bàyyi wuñ euh, euh, euh, gàmm gi bàyyi wuñ dara suñu liggéey daal ñun jàpp nañ ne waxtu wu ne bis bu ne heure bu ne ñu ngi ci li nga xamante ni mooy ndigal yi ñu sëñ bi sant mooy fas yéene di ko liggéey rek ba keroog ñu koy ñu koy fekk ji. yéen mbokki murit yi ñu ngi leen di nuyu fii ci xel koom seen mbokk Modou Diop donga bub Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mooy wax ak yéen euh, di leen xamal ni tey ñu ngi ci fukki fan ak juróom-benn ci weer wi. di gaaw muy bis bi nga xam ni ci la ñu tàmbali ngóobum xelkom euh, mën naa ne la wax nag kii xam naa ne mooy bisub tàmbali waaye liggéey bi fi mu toll nii cate na sori na lool lool ndax mën naa ne la bu dee fii ci Touba koom moom euh, dagg bi fi mu toll nii mat na sëkk xam naa li ci des moom mooy lu mel ni lippi mi dajale ko moom moo ci des lépp yaatu na bernde yaatu na lépp aw na yoon lépp aw na yoon taxawaayu sëriñ bi mat na sëkk saa bu amee lu dese rek ci nun dongo yi lay dese waaye taxawaayu sëriñ bi mat na sëkk teyit eh, ba fi mu toll nii gisaguñu dara lu lu lu lu jangar daal ba pare nag mu gis nga bëgg ab sëriñam. te man amul kenn ku dul sëriñ. nee amul kenn ku dul sëriñ Cheikh mbakkeem sëriñ Saliou. kon nag lii muy def nii. nee lii nga defal sëriñ seex nii. Euh, nangul ma ko. nangul koro nga xam ne lii mu fi def. nga xam ne lii mu fi def. ci liggéey bi. ci bi. gaw ma ni nit def na ko fi. gaw ma ni nit def na ko fi. néew na ñu bëri boole woon. néew na ñu bëri boole woon. sëñ Moustapha Cheikh ne lii nga def du ñu ko def. parce que xam naa jikkoom. ne dafa xam na sa jikkoom moo tax muy wax. ne keneen woote. ne keneen woote. ku ko xam la ne ku la xam la. moo tax ma boole ko sama biir. moo tax mu boole la ci biiram. maa ngi koy ñaanal. mi ngi lay ñaanal. maam sëñ Touba. ma ci sa mu yàgg fi lool. nga yàgg fi lool Cheikh Moustapha. ànd ak wér. ànd ak wér. lépp lu mu mën. na. mën lu ko ëpp. yàlla na nga mën lu ko ëpp déwén. mu yokk di yokk nga yokk rek di yokk di yokk Mbakke. te mu yàgg fi lool. te mu yàgg fi lool. ñu àndandoo nag liggéeyal sëñ Touba. ñu àndandoo nag yéen ñaari njaboot gi liggéeyal sëriñ Touba. waaw loolu daal. ne loolu daal. laa bëggoon sànni. ne la bëggoon sànni. jóge Brésil. Brésil nga jógee. waaw jógee Brésil ñëw Xelkom mu nekk taw feex si ñun nga xam ni dañ daan toog fële ay at boobu yàlla dogalul kayit yi ñuy gis liggéeyu Xelkom bi nga xam ni fii njariñ loo xam ne la ànd ay lor. liggéey sëñ Tuubaa rek moo des ci àdduna kon bu la fi fekkee rek li nga war a def rek mooy nga profité bàyyi sa yitte yëpp ñëw liggéey ndax njariñ li moom moom maanaam boo soree sax ngay xam liggéeyal sëñ Tuubaa ban importance am boo nekkee ci Tuubaa bi ngay xam liggéeyu sëñ ban importance la am ndax démb rek la Touba Brésil ñëw siyaare sëñ Muntaxa ànd koog jëwriñ Cheikh Ndiaye mu nekk liggéey bu am solo bu ñuy def foofu si Touba Brésil màggal gi ku ne da koy gis waaye dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey bi fii la xel ko ni Serigne Saliou moom li mu ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ca la sëñ Touba doon def ca mag ña mooy lii ndax day mel ni joxul kenn paas wowul kenn téléphone waaye day mel ni sëñ bi moom day day communiquer ak ruuy ruuy laal la sëñ bi moom ñun daal ñu ngi santaat ci teew gin teew fi maanaam li ñu yëg ci suñu xol yi maanaam ñàkk a doyal gin ñàkk a doyal daal maanaam mënuñoo xam sax nu mu toll barke daa a jeex kaal barke Cheikh ma wax ma nekk Touba Brésil ci euh, fa ñuy wax euh, Pernambouc moom xanaa bateau Pernambouc moom ku ne dégg na ko ndax foofu defe naa bateau bi yóbboon sëñ bi foofu la nekk ndax euh, liggéey xel ko moom ku ko def rek ku ko def xam ne maanaam mhm. amul amul amul la ciy regretté loo ciy rëccu nee na mi ngi sant baayam di ko gërëm ba sëñ Bassirou Mbacke sëñ Modou Xabaan di ko ñaanal mu yàgg fi te wér liggéey sëñ Touba bii nga xam ne mi ngi koy liggéeyal nee na yàlla na ko yàlla defal lu mu ko bëgg sëñ Saliou nag nee na amul lu ëpp lii nee na képp koo xam ne yaa ngi koy lebal wala nga koy defal nee na xel kom ji la am nee képp koo xam ne danga am yéen si moom wala mu lebal la bis bu mën a ñëw si yow bis bu mën a doon muy bis sëñ Touba yi mooy bisu bànneex ak lu mën a doon nee na mu mas la ko lebal nee na soo ko bëggee fay nga ñëw xel kom ndax nee na xel kom amul lu ko ëpp di dunde xamuñ leneen doo leen dégg su lu ngeen war a dégg sëñ Saliou Mbacke m sëñ Basum sëñ Mourou Xabaan mi ngi sant ñëpp bi muy ñëw nag ànd na ko waa kër sëñ Touba yi mu war a àndal seex yoonu murid seexi sëñ Touba yi ne sëñ maam Seex Ibrahima Fall seex Sa Diagne ñooñu niñ fi newoon si yoon wi seen sëdi tey yaakaar naa taxawaay boobu wécci wuñ ko si sëñ Touba si sëñ Saliou di sëñ sëñ Saliou di di sotu sëñ Mëndumbe Xabaan taxaw taxawaayu sëñ Mëndumbe kon yaakaar naa tey lii rek nag mooy ndamul lislaam mooy ndamul Sénégal mbokk yi fii ci Daaru Salaam di daaray diis ci xel xelkom fi la Serigne Cheikh Anta Mbacké xalifa Serigne Modou Rokhaya nekkoon ànd kook mbooleem waa Daaru Salaam gépp moom nag nekk kenn ci jëwri ni moom it ak mbooloo mi àndaloon ñoom it ñu liggéey fi liggéey bu am solo lépp loo xam ne rek jëm na ci sas wi nga xam ne moom la leen Serigne Cheikh Saliou Mbacké joxoon mu ànd kooku taalibe ñu liggéey ko liggéey bu pasteefu bañ matal ko ci la leen Serigne bi ñaanalee ñoom it ñu daldi di yeeweeku taalibe yëpp. Serigne Moustapha Lakaram Mbacke nee na mi ngi nuyu mboolem mbokki taalibe yëpp. fu fi nit jóge. nee na fu fi jóge. bu dee seex. nee na bu dee seex. bu dee jawriñ. bu dee jawriñ. bu dee kenn këram. bu dee kenn këram. bu dee famille yu bari. bu dee famille yu bari. bu dee kenn ku coobarewu. bu dee kenn ku coobarewu. na ko leer ne. na ko leer ne. Eh, nuyoo bii. nuyoo bii. li ci yàlla digle. li ci yàlla digle. bu ma doon mooma. nee na bu doon mooma. te du ma doon ma mukk. te du doon mukk moom mukk. ab jaamam laa bu ndaw. nee na jaamam sunu borom bu ndaw rek la. waaye kon ma ma jox leen nuyoo. nee na kon mu jox leen nuyoo boobu ndax xol bu sedd. ndax nee na xol bu sedd. ah woo nañ leen. nee na woo nañ leen. a ah, wuy si ngeen. nee na wuy si ngeen. ah bu ñu demee màkk lu ñuy wax labbayk. nee na bu demee màkk lu ñuy wax sunu borom mooy wuy si nan la. la sharika laka la duñu la bokkale yow duñu la bokkaale mukk yow yàlla wuy si nan la cant ngërëm cant ngërëm ñeel na la ñeel na la wuy nañ la wuy si la waaye yéen wuy si ngeen waa nee na ñi wuy si ngeen de wuy si ngeen sëriñ Tuubaa de nee na wuy si ngeen hmm, te euh, fii ni ma koy gisee nee na te fii ni ma koy gisee wax dëgg yàlla arafa de alhajju arafa nee day nee na aj arafa alhajju arafa nee na aj mooy arafa de waaye mënoo faa gis lu weesu lii nag waaw na mënoo gis mukk arafa lu weesu lii mu gis fii ci xel koom te mënoo faa gis it ñu ñu gëm yàlla ñu leen gën a gëm yàlla nee na te mu kenn mënta gis arafa ñoo xam ne danañ leen gën a gëm yàlla mukk mukk mukk mukk mukk mënta ne dafa mënta nekk dafa mënta nekk sëñ bi nee mu ñu leen gën a gam yàlla ci arafa ay sëñ Tuubaa na mëne su koo gis ay million fay daje de nee na ay million fay daje fii ay junnee fi ne nee na ay junnee fi ne waaye da gis kon junniy junniy ajkat waaw nee na da nga gis junniy benn góobkat ëpp ko doole benn góobkat ëpp ko doole sikk sikk newu ci nag sëñ Moustapha la karam ne ni sikk newu ci kon nag nee na kon nag maa ngi leen di sant. sëñ Moustapha Alakaram nee na mi ngi leen sant. mboolem mbokk yi mu àndal. nee na mboolem mbokk yi mu àndal. ak bokki taalibe yi. ak bokki taalibe yi. ak soppe ak soppe ñoom ñëpp. nee na ñoom ñëpp. ñi ngi ànd ak sama cant. ñi ngi ànd ak ak cantam. tegaat ko ci sama loxo. tegaat ko ci loxoom. ma teg ko ci loxol euh, sëñ Cheikh Salihu. mu teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Salihu. mi nga xam ne. mi nga xam ne. moom la yàlla dogal. moom la yàlla dogal. mu woonu mu wooñu fi. waaye bi may wuy si nag. waaw nee na bi muy wuy si nag. dafa tombeek may jox addiye sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. nee na daa tombeek muy jox addiye sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla fi yàgg te ànd ak wér. bi ma ko joxee ba noppi nag. nee na bi ma ko joxee ba noppi. tàggu ko. daal di koy tàggu. mu mu ne ma ànd na ak man. mu ne ànd na mu sëñ Moustapha mii. ci li ma ko tàggu. ci li nga ne moom la ko tàggu. demb rek doomam. nee na démb rek doomam. sëñ Cheikh Abdou Latif. sëriñ Cheikh Abdou Latif. dane sëñ bi nee na dafa xam ne bu ñëwoon leneen lay jur. nee na dane mun Muntaxa nee na dafa xam ne bu ñëwoon leneen lay jur. moo tax mu yebal ko. nee na moo tax mu yebal sëñ seex moom yi. domp sax ci sot la bokk. nee na domp sax ci sot la bokk. camion ma ngi nii ku ne xam na ne camion bi benn oto mënu ko. nee na camion sëñ Muntaxa baa ngi nii kenn ku nekk xam na ne camion bi benn oto mënu ko ci tool yi. te def na ca lam ci war a def ba bu bu doon ëllëgit du wuti gaasuwaal. te def na ca lam ca war a def ba bu doon ëllëgit du wuti gaasuwaal mukk. te te do domp ci sot la bokk la ma waxoon. te sëñ Mountakha da ne woon sëñ Moustapha Lakaram domp ci sot la bokk. na leen leer ne. sëñ Moustapha nee na na leen leer ne. bi ma ko tàggoo. bi ma ko tàggoo. ba mu ba mu ba mu ba mu jox ma ndigal. ba mu jox sëñ Moustapha mi ndigal. ma sof ko ci ndigalal sëñ Cheikh. mu sof ko ci ndigalal sëriñ Cheikh Salihu. booba lañ jàpp ne. nee na booba lañ jàpp ne. li am daan li liñ bëgg daan ko am. li ñu bëgg danañu ko am. sëñ Lamine a ngi nii. nee na sëñ ngi nii. nga xam ne moo moo jiite daara ji. nga xam ne moo jiite daaraji ji. defe naa alxames. nee na yaakaar na ne alxames. ci bëccëg. ca bëccëg. lañ tàmbali. lan tàmbali ngóob mi. defe naa ñaar fukki waxtu. nee na yaakaar na ne ñaar fukki waxtu. ak juróom-ñaar. ak juróom-ñaar. laata ñuy añ démb. laataa ñuy añ démb. huit cent hectares yi dagg nañu ko. nee na li nga xam ne mooy huit cent hectares yi dagg nañ ko. di huit kilomètres yi. di huit ñu tàmbalee góob. ñu tàmbalee ñu tàmbalee lippi. ñu tàmbalee lippi. àgg na. àgg na onze heures ah, loolu nag. sëñ bi sama karam nee na loolu nag. du kéemtaan. nee na du kéemtaan. seenug nangu nangu la de. ak nangu nag. nee na ak nangu nag. loo ko dóor mu daanu. loo ko dóor mu daanu moom nangu. mooy pas-pas. nee na mooy pas-pas. moo waral nag. nee na moo waral nag. bi ma tàmbalee bay bëgg a wax. nee na bi mu tàmbalee bay bëgg a wax. ah wax dëgg yàlla gars yi de ku leen gis yaakaar naa ne da boo xamee sëñ Saliou da nga xam ne man man sama jataay riis na tey. nee boo gisee gars yi nga xam ne ñoo ko wër miin jataayu Serigne Saliou Mbacke gis ñi ko wër. xam nga ne jotaayam bi riis na ndax ñii ko war ñoo daan wër a Cheikh Saliou Mbacke yal na yàlla yokki leeram kii de la moom moom ma mujj liggéeyloo kii ma woo nee lim ko Serigne Saliou mujj liggéeyloo Serigne Moussa Niang mii ko woo ki tax ma mujj gis sëñ Saliou kële ma mujj gis Serigne Saliou muy sëñ bi jaxate Serigne Saliou jaxate Saliou jaxate Serigne Saliou jaxate bala ma liggéeyloo noppee ba ma ñëwee nee na sëñ Moustapha nee na ba lam ko liggéey loo noppee ba mu ñëwee yaa yaa yaa yaa tax ma gis ko Serigne Salihu Jaxate sëñ Moustapha karam nee na yaa gis keroog yaa tax mu gis keroog Serigne Salihu Mbacke ba keroog bi may yónnee mbubb mi ma décoré. nee na ba keroog bi ko Serigne Saliou di yónnee moom sëñ Moustapha mi mbubb mi mu ko décoré. te booba defe naa ne bisu alxames ajjuma mu julli tabaski ba mu dellu see la sëriñ bi dem nee na yaakaar ne bisu alxames ajjuma mu julli tabaski ba mu del see la bi dem mbubbam mooma moom lay sol nee na ba tabaski gii jàll moom sëñ Moustapha la karam moom lay sol fa armal ya ne nee na fa armal ya nekk nga xam ne bu ma demee màkk armal nga xam ne bu demee màkk armal ak euh, mbubum xelkom 91 bi muy bi muy tàmbali xelkom. ak mbubum mi nga xam ne moom la soloon 91 bi Serigne Saliou di tàmbali xelkom. ak mbubb yi ma gën a fonk daal. ak mbubb yi nga xam ne moom la gën a fonk daal. nga xam ne bu fi jógee woon buñ ma sàngutit ñu ma ko muure baax na. nga xam ne bu fi jógee woon buñ ko sàngutit buñ ko muuree mbubb yooyee baax na. loolu kon bu ngeen teewee. nee na kon buñ teewee. dafay daal di rëyaat ci man. n na daal di rëyaat ci moom. ak collaborateur yi sëriñ bi. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo daan ànd ak sëriñ bi. ak ñi ànd ak sëriñ Cheikh. ak ñi ànd ak Serigne si rek. ak sëriñ Cheikh. ak sëriñ Cheikh. ak jëwriñ yi. jëwriñ yi. sëñ Lamine a ngi nii. Serigne Lamine a ngi nii. sëñ Saalihu doomam ma nga ca Daaru Xuddoos. Serigne Saalihu doomam ma nga ca Daaru Xuddoos. yaat ma ñoom ak njaboot yëpp. nee na yaat ma ñoom ak gi yëpp rek. ñoom jóge nañ ci sëriñ ba. ñoom jóge nañ ci Serigne bi. sëñ Cheikh Diak. Serigne Cheikh Diak. defe naa ne préfet nee nañ su préfet mi ngi teew. nee na yaakaar ne defe naa ne su préfet mi ngi teew. na nga yëg ne jox nañ la sa àq. nee na na nga yëg ne jox nañ la sa àq. waaye heure bii démb gouverneur a nga ca jàgg ba. waaye heure bii démb gouverneur ma nga ca jàgg ba. ministère sax bu ñëwee boo boo ma fekkoon dugg ma fii ma jox la ngóobaan. nee na ministère sax nee boo ko fekkutoon duggul fii sax mu jox la ngóobaan. ndax man góobloo na ay ministère. ndax nee na góobloo na ay ministre am na ñu jóge présidence na commissaire yu fi jóge léegi. nee na am na ñu jóge présidence am na commissaire yu fi jóge léegi. ku bëgg dara. nee na ku bëgg dara. bu ñëwee xel koom. bu ñëwee xel koom. te te bëgg fee jëlee dara. te bëgg fee jëlee dara. bu pas-pas ba dëree. bu pas bu pas-pas ba dana ko def. dana ko def. waaye na nga yëg ne sëñ Touba toll noonu. waaye na nga yëg ne noonu. ndax préfet wala adjoint préfet te mooy sous préfet. nee na moom préfet wala adjoint préfet mooy sous préfet. ca tubaab ya. ca tubaab ya. ñoo ko ne woon li nga fiy woote du nekk. ñoo ne woon Serigne Touba Khadim Rasulullahi yaakaari jaam ñi li nga fiy woote du nekk. kon boo ñëwee sukk nii. nee na kon boo dikkee sukk ni ñaanuk señ bi nangu na. ñaan ak Serigne nangu na. sëñ Touba noonu la demee. nee na Serigne Touba nii la demee. waaye maa ngi lay jox sa àq sa wàccuwaay nag. waaw ne sëñ Moustapha Lakaram nee na mi ngi lay jox sa àq sa àq ak sa wàccuwaay. ci fi nga yilif ci fi nga yilif say maire say maire ak li nga doon ci dë ci dëkk bi ak li nga doon ci dëkk bi ñoo ngi lay dalal nee na ñu ngi lay dalal waxtu wi nga ñëwee baax na nee na waxtu wi nga ñëwee baax na lool eh, ndax benn sous ndax nee na benn sous budul tey jii budul tey jii lii nga lii nga lii nga boot li nga boot te teewe ko te teewe ko ah bëriwul bëriwul lu ko sous-préfet di boot nee na bëriwul lu ko sous di boot kon na nga yàlla préfet kon sëñ Moustapha nee na na yàlla te gërëm ñi la fi indi te gërëm ñi la fi indi te jàppaat ci sëñ te jàppaat ci sëriñ Touba Xaadim Rasul waaw kon nag sëñ Moustapha la karam nee na waaw kon nag sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh noo ngi koy delloo ak cant sëriñ Cheikh Salihoun sëñ Moustapha nee ñu ngi koy delloo ak cant ndax woo gim nu woo ndax woo gi nga xam ne moom la ko woo mu sofoon ko ci sëriñ booteb sëriñ ba mu Galas mii day xam na ne. nee na sëñ Galas Sylla mii day xam na ne. sëñ Moustapha Caytu. sëriñ Moustapha Caytu. sëriñ Cheikh Anta. man moom mii di sëñ Moustapha la karam. defe naa ba na leen fi. waaw nee na defe naa ba mu naan am ngeen ngërëm waaye ngërëm li jiitu nañ ci. yaa ma koy gën a mën a nettali waaye. nee na yaa koy gën a mën a nettali yow sëñ Fallou Galas. tama yéene leen ko sëñ Fallou Galas nee mu teg ca tama yéene leen ko lool kon sëñ Cheikh sofaat na yéene leen ko ndax tey ndax nee tey jii sunu ñëwoon tey. sunu ñëwoon tey jii. jant bi du so. jant bi du so. te yëf yi àggut. te yëf yi yëggut. li tax ñuy jiitu. nee na li tax ñuy jiitu. bëgg yool bi gën a bari rek. bëgg yool bi gën a bari rek. moo tax nu ñëw. moo tax ñu ñëw. bi ñuy ñëw itam. nee na bi ñuy ñëw itam. bu ñu fekkoon ne dara manqué na. bu ñu fekkoon ne dara manqué na. sunu ngottu la. sunu ngottu la. waaye sëñ Touba desalu nu dara. waaye sëñ leen dara. moo tax bu ñuy waaj di ñëw. ne moo tax bu ñuy waaj di ñëw. du ma soxla ndimbalal kenn. du soxla ndimbalal kenn. ku dul yàlla. ku dul yàlla. ndax yàlla miy joxe ndax yàlla miy joxe ci barke sëñ Touba ci barke sëriñ Touba wax dëgg fàttewuñu wax dëgg fàttewu ko moom sëñ Moustapha la karam kon nag bu nu amee bu nu ngottul nee kon bu nu ngottul ay ganaar sax kenn ci yéen ku ne dañ ko waroon reyal ganaar jox ko nee na kenn ku nekk ci yéen sëñ Moustapha nee na ko waroon a reyal ginaar jox ko ginaar ak boppam te sëñ Touba xañunu ko nag te sëñ Touba xañu ko dañoo bëgg nag rek nee dañoo bëgg rek ne ñu ci jariñoo li ñu ci jariñoo 91 ba tey 91 ba tey gone yi yi góob ngóob mi ñi ci ëpp judduwuñ booba. booba gone yi góob ngóob mii ci biir deux mille dix neuf bi booba judduwuñ quatre vingt onze. ma ne ci ba ba nekk ceeg ñoom. moom sëñ Moustapha Lakram mu nekk ceeg ñoom. fi ma ne ci ba ñoom. fi ma toll woon. nee na fi mu toll woon. ak fi ma toll. ak fi mu toll. bu leen ci yéem dara. nee na bu leen ci yéem dara. man ngeen ma weesu. nee na man ngeen koo weesu. na ngeen gëm lool nee na na ngeen gëm loolu. yéen ñëpp nag. nee na yéen ñëpp nag. kon bu loolu amee. sëñ Moustapha Lakaram nee na kon bu loolu amee. sëñ Cheikh mi nga xam ne. sëriñ Cheikh Salihu mi nga xam ne. moo toog jataay bi. moo toog tooga bi ak Cheikh Salihu Mbacke. te am ci moom yaakaar. te am ci moom yaakaar. ju wóor nag. ju wóor. ndax jikko jaa tax. ndax jikko jaa tax. man jikkee mu man a yilif de. sëñ Moustapha Lakaram nee na moom jikkoo ko mën a yilif. kër gu rafet ak i oto rek. nee na kër gu rafet ak i oto. ak mbooloo. ak mbooloo. ah man loolu sama yoon nekku ci. nee na loolu yoonam néew ca nag. déedéet. ah déedéet. jikko rek. nee na jikko rek moo ko mën a yilif. mu baax na. nee na sëñ Cheikh jikkoom baax na. moo tax ma jox ko kilifteef. moo tax mu jox ko kilifteef gi. moo tax mu jaral ma lii. nee na moo tax mu jaral ko lii. fee nga gis ma dem fa. nee na fee nga gis mu dem fa. si ñoo ñëw xel koom. si ñoo ñëw xel koom. te nekkuma ci baas bi. te nekkul ci baas bi. moo ma jox ndigal. nee na moo ko jox ndigal. ne nag. ne nag. bu sañoon ma dal ca kër ga. bu sañoon mu dal ca kër ga. moo léeg-léeg ngeen am diir bu ngeen ma dul gis. moo léeg-léeg ñu am diir buñ ko gis moom sëñ Moustapha mii. ah man nag ci ndigal rek lay wéy. nee na moom nag ci ndigal rek lay wéy. Mbacke ba ma ko waxee ma ne ko noo ko bëggee rek laa koy def. nee na bi ko ko sëñ Cheikh waxee mu ne ko noo ko bëggee rek ni laa la koy defale bis bu njëkk ba sax moom moom ñëwuma. nee na bis bu njëkk ba sax moom ñëwul. waaye alxames ba tey. waaye nee na alxames ba tey. maa ngi ci wetam. mi ngi ci wetam. di ko déglu. di ko déglu. Eh, nee ko. mu ne nee ko. sant nanu. sant nanu. sant na taalibe yi. sant na taalibe yi. waaye ñun it sant nañ ko. waaye sant nañ ko. ab sagak da loolu rek la nu bëggal. nee na ab sagak loolu rek lanu bëggal. ak wan nu ne. ak wan nu ne. yéen a ngi ci biir sëñ Saliou. yéen a ngi ci biir sëriñ Saliou. te sëñ Saliou kat. te sëriñ Saliou kat. ah defar na moo defar ñu bari. nee na moo defar ñu bari. moo moo moo settali ñu bari. nee na moo settali ñu bari. kon nag. nee na kon nag. ginnaaw yëg nañ ne. ginnaaw yëg nañ ne. te ñooña lañ bokkoon. te ñooña lañ bokkoon. te sànniwuñu. te nu ànd ceeg moom ñu ànd ceeg moom dañ koy wax jaajëf dañ koy wax jaajëf waaye dañ koy waxaat ne ko waaye dañ koy waxaat ne ko nanu nanu santal njaboot gi nanu santal njaboot gi njaboot gi sant nañu njaboot gi sant nañu sant nañu leen sant nañu leen ñoom njaboot gi loolu daal eh, sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ Moussa daal nee na loolu daal boo àggee ci sëriñ bi boo yeggee ci sëriñ bi ak jëwriñam yi toog ak jëwriñam yi toog nañ nañ xam ne nañu xam ne ah Dey moom sëñ Moustapha Dey mi ngi ci wetu kilifteef mi ngi ci wetu kilifteef képp ko fi mbokkam seen amar wala jege ñaaleem wala jege ñaaleem na yëg ne na yëg ne ngërëm lañ daa def ci moom ngërëm lañ daan def ci moom def nañ ko def nañ ko te man ñu ma ku ma jege ci xol la te moom Cheikh Amar ku jege sëñ Moustapha Alakaram ci xol la ndax buy lim ñi gën a jàpp ndax buy lim ñi gën a jàpp dana ca bokk dana ca bokk moom Daaru Salaam dana ca dana ca bokk ak keneen ku cay ah, moo xam moo kooka moo xam waaye lim ma wax daal waane nee lim ko wax daal loolu la loolu la kon nag taalibe yi sëñ Moustapha Alakaram nee na kon nag taalibe yi ah yéen a des nee na a des yéen nag moom. nee na yéen nag moom. du neex deret may wax ak yéen. nee na du neex deret may wax ak ñun. ndax ah, bi may tàmbali rek. ndax nee na bi muy tàmbali rek. xawuma mën a dem. nee na xawuta mën a dem. xay na yéen a ma dimbale. nee na xëy na ñoo ko dimbale. ba ma mën a dem. ba mu mën a dem. daañu fi jooy. ndax nee na ni fi jooy. ci pas-pas. ci pas-pas. maa jooy. dàquñu koo jooy. waaye jooy da dut ay caaxaan. waaye nee na jooy da dut ay caaxaan. sëñ Saalihu newoon na ma. nee na sëriñ Saalihu newoon na ko. may jooy ci wetam. may jooy ci wetam. mu ne ma arab de nee na. mu ne ma arab de nee na. rongoñ lu mu wax dëgg la. rongoñ lu mu wax dëgg la. waaye yéen de. waaye ne yéen de. ah eh, yéen daal neexut na yéen daal neexul deret. ma mën a dugg ci yéen daal. mën a dugg ci yéen. dama mënu ma ko mënu ma. nee na mënta dugg ci yéen daal. mënu ma ko. nee na mënu ko bëgg na ko waane mënu ko. mënu ma ko. nee na bëgg na ko waane mënu ko. waaye yal na leen yàlla fay. nee na waaye yal pay goo xam ne. nee pay goo xam ne. da xam ne eh, naxu leen. nee na da ngeen xam ne naxu leen. pay ga leen. pay ga naxu leen. yal leen yàlla fay. leen yàlla fay. sagal ngeen ma. nee sagal ngeen ko. yal na leen yàlla sagal. nee yàlla sagal. ci àdduna. nee na ci àdduna. li ngeen ci bëgg. nee li ngeen ci bëgg. yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla na leen ko yàlla defal. fan jëm itam. nee na fan jëm itam. yàlla yàlla na yàlla yàlla na leen fa yàlla gàttandoo ngërëmal Serigne Touba. nee ndax fi ngeen ne rek fi ndax nee fi ngeen nekk rek fi laa ku ci njàng jàng njàng ba defee ne ferne ji. nee na ku ci jàng si njàng ba yaakaar ne fer nga iji. bay bëgg a critiquer sëñ bi. bay bëgg a critiquer Serigne Touba. kooka moom ba ko rek. nee na kooka moom bàyyi ko rek. bala moo dee. bala moo dee. moo la ko dul wax nag. moo la ko dul wax nag. waaye dana am fitna joo xam ne. waaye dana am fitna joo xam ne. bala mu caa génn xam. bala mu caa génn xam. waaye duutu ko mën a wax nag. waaye duutu ko mën a waxati ndax fa mu toll. kon nag fi ngeen toog yam leen ci yolu. nee na kon fi ngeen toog te mooy sëñ Touba yam leen ci loolu na ngeen bëggaat sëriñ bi. nee na na ngeen bëggaat sëriñ Touba. te jàppaat sëñ bi. te jàppaat sëriñ Touba. dëkk bu ngeen dem yéen ñii. nee na dëkk bu ngeen dem yeen ñii. nit bëgg leen a dolli dara feeg déwén. nit bëgg leen a dolli dara feeg déwén. bu ngeen ko laabiree de xëy na ngeen jox ko dara. bu ngeen ko laabiree de xay na ngeen jox ko dara. waaye mënalu leen dara. waaye mënalu leen dara. ndax li ngeen liggéey nii. ndax li ngeen liggéey nii. bu bu kooko bu ko xamoon. kooko bu ko xamoon. dana góob si ko. dana góob si xel koom. leen sëñ Touba. kon yam leen ci sëñ Touba. te te déglu sëriñ bi. te déglu sëriñ bi. kenn ku nekk ka ko yàlla booleel. kenn ku nekk ka yàlla booleel. te naxu ko. te naxu ko. mu déglu mu déglu ko. bu ko naxee. bu ko naxee. na ko wër. na ko wër. jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi jërëjëf itam mbokki taalibe yi euh, mbokk yi kon euh, liggéey bi ñu doon wax mi ngi noonu liggéey bi mat na tey ci ci ci ci ci gaaw bi kon day mel ne ajjuma ji rek ak gaaw bi la nit ñi liggéey liggéey bi lépp mat na gis ngeen kilifa yi gis ngeen oto yi gis ngeen engagement bi murid yi jël gis ngeen jal yi mbokk yi li mooy liggéeyu Xelcom moo tax acca murit bu sëñ Tuubaa wootee rek gaawal wujji lu ko may rek eh, dara doo ca def dara kon mbokk yi liggéeyu ren bi eh, di 2019 di le 18 Eh, ci gàmm gi yemoo woon ak eh, le 16 ci weeru tubaab liggéey bi sëriñ Cheikh woote woon mat na sëkk ñoo ngi koy ñaanal sun borom subhaanahu wa taala na ko yàlla yàggal jamono lool doole ak wéram ba liggéey bi muy liggéeyal lislaam ci ruuxi doomi aadama yi ngir liggéeyal lislaam aw jiwu ëllëg yàlla na ko ci yàlla defal ndam eh, te senegal jariñoo ko lislaam jëriñoo ko yoonu murid jariñoo ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.